sart
du dëgg moo tax wa chartu man il aari sartu tere soppiku lañ ga ñuy tere mu an adam buy mu annas ah kawnuhu mooy nekkam irtaqa yéeg fawqa salaasi lu ëpp ñetti xaraf ni ki Zeynab aw ka juura wala nga xani dafa ca boole ak alam juura aw ka juura dégg nga alamun ajabiyun dégg nga kon boog alam gi da cee boole ujma nda joora ñetti araf rek la te digg ba dafa sukkoon kon woyof na joora moog hind ñoo tollool ndax ku ci ne sulaas yi la bu digg ba sukkoon waaye nag joora li tax hind mën a doon mun sarif te moom muy muy maalaan sër dafa di ajam boole ci aw saqar wala muy mutaxarikul wasat saqara dégg nga xam nga tur safaral alam la te sulaas yi la waaye nag tax xarakatul wasat bi moo wàccee wàcc waayu xarfu raabe ndax xam nga ne xarfu saakin moo gën a woyof xarfu mutaxarrik saqara maa laa insarif la wa ma adraka ma saqaru sa uslihi saqara tanwinoo ko wa ma adraka ma saqaru tanwinoo ko laa tubqi wala tadaru ah jigéen la ndeke déggoo ndekoon mu ni laa yubqi moom saqar waxul laa yubqi wala yadaru laa tubqi wala tadaru saqara mu annas alam la waaye li muy sulaasi yi bu dul woon xaraka gi ci digg bi moo diisal baat bi kon mu mel na hind mën a doon munsarif te da nga naan jaat hindun raaytu hindan marartu bi hindin lu dëgg sartu lay tere sartu man il aar yi min at taa i mu annas bu boo xam ne rafle wu na ci xaw taani sartu tere soppi koom ngir li muy alam mooy nag na fekk mu boole ca irtaqa fooqa salaas na ëpp ñetti araf bañ a mel ni zaynab dégg nga wala boog nga xam ne bu dee ñetti araf it da doon waxu ajam boole ni ki joora alamu baladi wala boog dafay mutaxarrikul wasat boo rek taanis ga ni ki saqara aw wala boog bu fekkee saakinul wasat la ni ki zaydin mu nekk ismam raatin turu jigéen las ma saqar du jegeen turu góor wala zaydun boo tuddoon turu jigéen zayd bu fekkee turu jigéen nga ko def lu ko lu lu tax moom fokk kon maa laayen sarif lay doon jaa at zaydu as ndaw la suñu tuddee jaa at zaydu maratu bi zayda li ko def da nga koo toxalee ci turu góor yóbbu ci turu jigéen loolu nag toujours day toxal googu day indi dara seetal adlu toxale nga ci amir indi ci umar mu daal di doon illa zeydu toxal toxale nga ko ci jóor dikk ci jigéen mu mel ni beneen illa la bu ànd ak alam bu doon sulaas yi bu saakinul wasat ni ki hind du doon laaye ji bu anjëkkoona malaan sar léegi hind da nga koy soppi moog zeydu tu ñoo tolloo li leen wutale mooy hind moom ustu amilat awwala marratin alaman lil marati ama zeyd nag dafa doonoon turu góor ñu toxale ko ci andi ci turu jigéen loolu moo waral ñu wut hindu kooku ma ngi ci jëm hindu bi muy turu jigéen sax mën nga ko soppiku waaye nag bañ a soppiku gi moo gën waaye jaayisul la leen jaat hindu hindu jaat hindu bu dee turu góor kay taxul ñëw du dëgg dégg nga ndaxte loolu dellu ci cosaan rek la ndax cosaanu lisim an yakoona muzakkara te boo gisee adamu sarf génn illa génn aslu dem ci faru yooyu moo doon indi mboolem maalaan sarf loolu mooy doon indi cosaan du dëgg ah mooy wajhaani fil aadimi tadkiran sabaq wajhaani ñaari anam nag soppeek ñàkk soppe fil aadimi tadkira nekk na ci muannas ba ñàkk ngóoral gu sabaqa gu jiitu woon hind musta doon turu góor kooku kon léegi ñaari anam a nga ca man nga ni jaat hind wala jaat hindun comme sulaasi yu saakinul wasat lam yataqaddam lahu naqlun min al mudakkar ila al muannas kooku yaari anam yi dagan na ci amma soo delloo jël ind muannas delloo ci góor faf delloo nga lëf ci cosaan bi baabi awla wa ujmatan loo xam ne amul woon góor gu jëkk amul woon ojma gu jëkk bañ a mel ni joora ah kooku ñaari anam nga ca ka hind bu la neexee jaat hindun wala jaat hindu waaye nag bu boobaa nag wal man tere sarf ba axaqu moo gën a yàlla nag jaat hindu nag teewul moo gën bu la neexee ni jaat hindun ndax weefaay bi sulaasi yu la sakinul wasat la te lam yunqal min cheyin ila axar ajamiyul wat luy ko jóg ajam ci tëru baat ba wa taarifi tey ko jóg ajamit ca maarifaal ga baat boo xam ne wax ji waxu ajam la ci tër bu jëkk ba te itam turu ajam la woon ca ba mu ne ca wax la jëkk arab jot ci ma zeydin ala salaasi ànd ak ëpp gu mu ëpp ñetti xaraf yooyu ñetti sartango baat bi ajami yu la ci cosaanam maarifaal gépp ca ajam ya ñoo ko maarifaaloon te ëpp na ñetti araf niki ibrahima tey ak tur yu bari yi ci alquran bi ismaila ak ishaqa ak yaquba ak ku ci ne waxu ajam la te turu alam la woon ca ba ba ci arab jotagul sax te fekkit ëpp na ñetti arab ndax baat wat bi mën nay ajam waaye su fekkee taarif gi arab la kooku lu mel du ëppee ñetti arab itam du tax muy maanaam seen maanaam lijaamun yu ñuy wax laa bi fas soo ko defoon turu alamu nit du tax muy maalaayam sari te cosaan bi ajam la waaye nag nakira la woon rek ab laa bu fas rek du- du woon turu alam du turu nit léegi nag soo ko jëloon yow ci wax arab bi def ko turu doom tudde ko ab xal mu daal di soppi ko ajam ah, alam kon a- ajamiyul wad'i la waaye du ajamiyul taarif taarif gi arab la du def loolu bu boobaa du tax muy maalaan sër bi kon li jaamun soo ko tuddee woon nit muy alamit du doon maalaan sër te ajami yu la ah, ah, alam la léegi waaye bu jëkk nag da dul ca ajam ga nag la dul woon alam moo la ni wal ajami yul wat i wa taarif baat bi ko ju ajam ca tër ba ak ca maarifaal ga ma zaydin ala salaati ànd ak mu ëpp ñeent ñetti xaraf doon ñeent mbaa mu jëm kaw ni ki ibrahim ëpp na ñeent kooku sarfu ko soppi kom foo ko fekk imtana a tere wul wute naag li jaamin turu ajam la litu mu ajam la bi ko arab yi jëlee defuñu ko ala turu alam du woon alam ca ajam ga tey du boo ko defoon ajam nag léegi tudde ko nit itam du tax muy maalayan sëri ndax alamiya gi dadul ajam alamiya gi arab la wadu bi mooy ajam dégg nga loolu kadaaka naka noonu doo waslin borom wasnu boo xam ne yaxusul fi'la dafa jagoo feel kenn du ko gis ci lisam aw xaalibin fiihi wala ci feel la ëpp de wasnu boo xam ne ci feel dong nga koy am ni ki chammara wala ci feel la ëpp du dëgg kooku ni ki tey afalu du dëgg maanaam yafal ni ki yashkur kooku am na ci lisam waaye ci doon de aw xaalibin fii kookoo tam bu dee alam aw xaalibin ni ki ahmadin wasulu xaalib la ndax afalu feelu mudaari aw faila bil kasri afalu yaalaa nag wasunu xaas la ci feelu mudaari yafalu kooku feelu mudaari la wal maana an al ism alladi huwa ala wazni al fi'li xaas bihi aw al xaalibi fihi yamtaniu min al sarfi lil alamiyati wazni al fi'li والمراد بالخاص ما لا يوجد في غيره إلا ندورا كفعلتي بالدم والكسر نيكي دوئل اسم قبيلة دوئل كوكو كوكو تفعل دون لين فإنك إذا سميت رج- رجلا بضربة ضربة نتدكو واي نان جاء ضربة نيون كوكو تمنعه من الصرف أما boo ko defoon dara ba nag kooku wasnu fiyan la waaye dafa kooku bare na ca waaye day da da nga ko soppi ndaxte darab faalun xajarun darabun xajar moo darab ñoo tolloo wasnu boobu wasnu moom ni muy amee ci fiyan lay amee ci lis kooku du wasnu boo xam ne yaxu sut bismillah mën na ëpp nag ci fiyan ni ki ahmadun afalu kooku du wasnu boo xam ne yaxu sut fii la waaye xaalib fii bismillah wa maa yasiru wa maa yasiru lépp luy mujj alaman di alim alam min di alifin ci borom alif goo xam ni ziida dañu ko caa dolli lil ilxaaqi ngir bëgg a yeggal wasnu ci meneen morom wasnu bu ñu yéegal niki ilbaun dégg nga yuqaalu alaba rumxa maanaam yeewe na ko caas gu ñu tuddee ilbaa kon ilbaa ndeke alaba rek moo doon cosaan bi ndax yuqaalu alaba rumxa shaddahu bil ilbaai kon ilbaa lu ko andil wasnu ficlaalin ka qirtaasin ñu ne dañ koo yokk alif googu pour mu yor wasnu qirtaasin moom la ni wa maa yasiru loo xam ne dafay mujj alam an dégg nga na mu wax wa maa yasiru alaman min di alifin ziida lil ilxaaqi ci borom alif goo xam dañ ko ca yokk li ilxaaqi wasnin bi axara kooku fa lay sa yan sarifu du soppiku léegi ilba un su fekkoon ne da nga koo tuddee nit ilba un noonu nakira la mooy ak caasu gu ne ci loosu gëleem ñu di ko ye yeewe xar yeewe xeej yi waaye su fekkoon da nga koo tuddee nit muy alam léegi borom alifu lil xaq googu kooku day daal di nekk maa laa yansa wa maa yasiru luy mujj nekk alaman loola fu mu jóge min zi alifin ziida ci borom alif goo xam ne dañ ko dolli ca catal baat ba lilil xaq ngir bëgg a yéegal wasnu bi ci bu ko sutoon ni ki ah ni ki ala ba nga tëgg ca wasnu fi laa lin ah kon kon boo ne il ba rek jeexal nga kon nag alif gu ñu màdd googu nga indi mulxaq la alifu mamdood la nga ne il baa un kooku buy alam rek di maalaan sa di maalaan sa wala ala mamna sarfahu in udila kafu ala taw tawkidi aw kasu ala kafu ali tawhidi dégg nga wama wala alama alam imna tereel sarfahu soppikoom in udila ndem dañoo wasnu jàngal wasnu ba jëme ci beneen niki umaru ak qusamu ak zufaru ak zuhalu maadulun an aamirin wa zafirin wa qaahimin dégg nga su ko defee in udila te fekk muy alam ka fu ali tawhid niki fu ala ci tawkiid it moom itam malaan sarif lay doon niki jumau jaatil qabilatu maanaam qabailu nga ne jumau jumau maadul la ndaxte xabila bi jamaaul nga koy tawkiide lépp lépp xabilataani nga ne jamaawaani aywa qabailu kon jamaawaatun moo doon cosaan waaye nga nga ne jaatil qabailu jumau jumau maadulun an jamaawaatin ah su ko defee kookoo tam malaan sa mooy kafu alit tawkiid wala sual sual sual sual ibnu amrin qawmun mashhuruuna bi ramyi min tay banu sualin jiraanuha wa ummatuha dégg wala zuhal ismu najmin wala qutham ibnu abbas wala zufar ismu rajulin wal adlu wa taarifu maani a sahar ida bihi taayinu qasdan yuctaba dégg nañu arab naan ataytuhu yowma aljumaati sahara sahara jooju amul alif ak laam te moom ma maarifa la ndax saxaru yow min bi aynihi njël njëlu bi sàngam ajjuma ji nga ci jum da nga ni dikkaloon dikk naa yow mal jumaati saxara ah kon adloo ngi ci ndaxte al as saxaru bi alil xudóori yi as saxaru maanaam al jukko lu ñu maarifaalu al moo waroon a doon cosaanam du dëgg nga ad nga adlu ko di wax saxara rek bañ a ti andi al te it maarifa la ndax maqsuudun saxaru yow min bi ayni benn wuxte naag bu saxar boo ci jublu woon saxaru yawmin bi aynihi kon du doon maalaayam sëri ni ki najjaynaahum bi saxarin ci ak njël jum ko xam nga ràññiwul njëlu njël bis illaa illaa illaa ala luutin najjaynaahum bi saxarin ci ak njël kooku ma man ndax jubluwu ci saxaru yawmin bi aynihi waaye soo ne ñëw naa yawmal jumaati saxara kooku kon maalaayam sarif lay doon adduloo ngi ci ndaxte alla waroon a àndal ju ko maarifa dégg nga te lamboona maanaam al te it maarifa la ci njëgul njëlu bis xaas aju mu ni wal adlu wa taarifu mooy yaari illa yi nga xam ne maa ni a saxara ñoo tere baatu saxara ba tax arab di wax jituhu yawma jumaati saxara ida yuctabaru suñu dee jublu dégg nga ida yo ida yuctabaru suñu dee nam taayinu ràññ bihi ci moom qasdan ci jublu taayinu yawmin bi saxarin bi aynihi su fekkee moom lañ ci jublu amma buñ ci jubluwul ràññi benn njël bi ay nihi kon mun sarif la ni ki najjaynaahum bi saxarin abni binaalal faali lisim ju yor wasnu faali alaman mbir mu mu nekk di alam turu alam la faali ni ki xadaami ak qataami ak yooyu ak wabaari nang ko binaal alal kasri ci kasra loolu bu dee ci luxatu xijaaz ñaari luxa nag la ci arab yi am luxatu xijaaz yéen mooy alam faali bu dee alamu jigéen dañ koy binaal ci kasra faw xaraf wu ca mën a mujj su yoboo raa moo ca mujj ni ki wabaari ak nawaari jabaru faras ba wala miima ca mujj ni ki xataami ak xadaami arab nee na seen waykat ne ida qaalat xadaami fa saddiquuha fa inna alqawla maa qaalat xadaami xadaami ñaari yoon yooyu ci baytuy faayil la waaye teewul ña ngi ko binaal ci kasra loolu la nag na nga binaal faali bu dee alam ci kasra alaman muannasan alamu muannas lanu wax wa huwa moom faali nag nadiru jusham ndendal jusham lu yem ak jusham jusham fualu la te di alam xam nga ni jusham alamu benn waay kooku maadool la moo umaru jóge ci amir ñooyam kon jusham dañuy nattale ni jaashim moo doon cosaan am jaashim bi maana azim dégg nga ñi nga xamee ni jushamu ak umaru maa laa yansarif la nee na faali ju alamu muannas noonu maa laa yansarif lay doon inde tamimin fi tamim giru bani tamim ñoom dañu koy def maa laa yansarif ah ndegam raa mujj ca nag ñoom it de su ca raa mujjee ñu fekk si loxo xijaas di ko binaal ci kasra di ki fahalakat jahratan wa baari banu tamim daal faali alamu jigéen maalayan sarif lañu koy def kon nag dañ koy liraab ndax bu déggee baat maalayan sarif la xanaa lañ koy liraab a tax dañu koy liraab liraabu maalayan sarif lu dëgg bu doon ñoo wax baytu wow dégg nga dañu naan ida qaalat xazaamu kon moom la ñuy wax suñu ko dee fataa nag suñu ko dee xabat xabate ko fata bu ca raamujjee nag banoo tamim daal di yem ak xijaas ñu ñu binnaal fa aali ci kasra ni ki wabaari dafa la jàngal ñaari làkk yi ci népp ma ngi la doon jàngal buntu maa laayan sarif mu ne la xazaami bu dee alam mu annas kooku dañ koy binnaal ci kasra yaani inda tamimi yiin wa huwa moom fa aali alam mu annas nag naziru jusama moroomu jusam lay doon moroomu umar ci inda tamimin fi man bani tamim maanaam malaayim sarif lay doon niki gisam woog umar woog xusamu doone malaayim sarif du dëgg wasrifan soppil maa nu kiral la ñu nakiraal min kulli ma ci bépp malaayim sarif boo xam ne taarifu taarif maarifaal ga dégg nga te mooy alam gi assara moo jeexat jeexitaloon fii ci moom li ma loon nanu la yoo xam ne nangam ak taarif ak maarifa gi mooy illa ya du dëgg boo xamee ni ñaari illa yi téye baat bi benn bi moo doon doon gi maarifa ah kon tang boo ko nakiraalee génn na ci maalayen sarif ga dellu na di mun sarif du dëgg baat boo xam ne du dëgg maalayen alam gi dégg nga moo doon benn illaam bi tax muy maalayen sarif du dëgg lu mu mën a àndaloon su fekkoon ni alif ak nuun la saidataani daani la àndal wala wasnul feeli la àndal ba yima fi limoon biig nim nim alamiya moom dana ànd ak lu mat juróomi yëf bu mu ci mën doon boo xamee ni benn taarif benn taarif gi te mooy alamiya gi mooy benn illa ba kon tàng bu ñu ko nakkiraalee mu doon mun sarif ndax léegi kon juzul illa ba dañ na ah te kon la ko tere woon soppi amatul ñu soppi ko masalan su fekkoon ni danga usmaanu alam ak ziya benn ñaari illay ko téye alamiya gi mooy maarifa gi benn bi mooy ziyaadatu lalif wa nuun baada salaasati aruf nga dem nag nakiraal ko bëgg wax rek maanaa am usmaan am usmaan maanaa ab waay bu tudd noonu du dëgg kon looloo tax nga mën ni jaa usmaanu wa usmaanun aaxaru ak meneenum Ousmane seetal nakira la men beneen waay bu tudd Ousmane dong nga ci jub man nga ni Ousmane ñëw na ak meneenum Ousmane soo ko waxoon ci wolof dañoo xam ne ku ñaareel ki nakira la du dëgg Ousmane ñëw na ak meneenum Ousmane de xam fu mu banum fa mu jóg xam nu mu doon mooy doomi kan kenn xamu aywa su ko defee kon nga gis Ousmane ñaareel bi moom alami yëga nekku ca nakira la su ko defee kon na nga ko delloo ci cosaanu li si soppi loolu la ni wasrifan soppil maanu kiral lu ñu nakiraal min kulli ma ci bépp maalaan sarif boo xam ne ak taarifu maarifaal ga te mooy alamiya ga astara fihi jeexitaloon na ca moo doon benn illa ba kon bu dañee fa bi zawali juz il illati maanaam yazulu l xukm min kulli ma taathiru fihi athar moo mu wax ni nag taasir alamiya gi moo doon benn illa ba ci tere soppi su ko defee yal fa yal sa mu sarfuhu inda tankirihi ni ki rubba majruur ruba du nakira la doon maadi kariba ñaari illa yi ko téye woon mooy alamiya gi ak tarkibul masjid alamiya ga dañ nga nga bëgg a wax ne am am maadi kariba maanaam ab waay bu tudd noonu wala Ousmane wala Fatimatu wala Zeynab wala Ibrahimu wala Ahmadu wala Umaru gis nga ñooñu yëpp li tax misaal yi bare dafa bëgg wax bi nga xam ne alamiyaam benn illa bi dafa àndoon ak tarkib ni ki nga ni maadi kariba alamiya ga dañ muy nakir wala mu àndoon ak ziyaadatu larif wa nuun ni ki Ousmane alamiya ga dañ mu des nakira wala fatimatu mu àndoon ak tanis bi taa dégg nga tey alam alamiya ga dañ mu di ab nakira mu des boobu wala zeynabu kookoo tam maanaam tanis du maanaa la yoroon waaye léegi dootu alam ibrahim ujma ak alamiya la boole woon waaye nga dindi alamiya gi mu des wax ajamu kese bi ahmadu wasnul feeli la àndaloon dégg nga ak al mu àndoon ak alam umaru adlu mu àndoon ak aram yëpp bu alam nga dañee ñu des di nakira nga ni rubba maadi karibin wa usmanin wa fatimatin wa rubba zeynabin wa rubba ibrahimin wa rubba ahmadin wa umarin laqituhum rubba fatimatin laqituha rubba maadi karibin laqituhu léegi nakira la ndax rubba ci nakira dong lay dugg yëpp nga tanwin leen ndax léegi maal munsarif lañ dégg nga wa ma yakunu minhu manqusan fa fi irabihi nahja jawaarin yaqtafi wa ma yakunu lu nekk manqusan di lisi bu manqus minhu ci maa laa yansarif baat boo xam ne maa laa yansarif la woon bu dee manqus fa yaqtafi day topp nahja jawaarin yoonu jawaarin fi irabihi ci li irabam du dëgg jawaarin lu ñu koy def jawaarin asluhu jawaariyu jam'u jaariyatin jam'uhu jawaariyu dam dis ci yaa ñu naan jawaari nag aywa ba mu amee al nga ni wa min ayaatihil jawaari yaaga daf fay des waaye su laafoo nitam nga bàyyi fa yaaga waaye lu mel ni jawaarin man xus la du yaa moo ca mujjoon léegi nag bu taarawut laafut da ngay dagg yaaga tanwin la ko jëkk ni ki wa min fawqihim gawaashin ak jawaarin waaye googu tanwin nag gan la mooy tanwinu iwat anil xarf waaye du tanwinu sarf de dafa ni maalayen sarif bu dee manquus ci bi nga koy liraab yoonu jawaarin lay lay def maanaam da nga ko tanwin tanwin goo xam ne du tanwinu sarf déedéet tanwinu iwat anil xarfil maxduuf la ndax dégg nga loolu wa min fawqihim gawaashin lu doon cosaanam gawaashiyu ndax mubtada la min fawqihim mooy xabaram dafa ko dawlu gawaashiyu dam gi dis na ci kaw yaagu kenn sàddawul du dëgg su baat bi doon bu ñu laaf mbaa mu yor alif ak laam da nga koy bàyyi noonu mu sukkoon comme ni ngay waxee jaa alqaadi ci ci manquus moomu ngay waxee kon al wa min ayatihi jawaari amma su fekkee ne nag taarawut laafut kon ni ngay def xawaashin ak jawaarin noonu ngay def maalaayan sarif boo xam ne bii dégg nga da di manquus loolu mooy maanaam wa maa yakunu lu nekk manquusan di manquus minhu ci maalaayan sarif kooku fa yaqtafi day topp nahja jawaarin yoonu jawaarin fi iraabihi ci li iraabam dañuy dagg xarafu ràggu manquus ba tanwin ko tanwinu iwat anil xarf waaye du tanwinu sarf de ndax danu ci maalaayan sarif la ñuy jàngale والاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف من إنك آه آه صرف وصرف صبي نيو أي تان آه ذو المنع برو مكتر صبي مانا لو خاني دانيو تري وون كو صبي مانا لو خاني ما لا ينصرف لون دس نكو دف منصرف لترار غير لوروي bari na lor way lu ñu ci def munsarif loo xam ne maa laan sarif la loolu sax dañu ni min ahsani daruraat day bokk ci yi gën a rafet ci daruray chére li annahu rujuun lil asli dellu ci cosaan la ndax cosaanu lisim mooy li raat li gaaroon lisim ji ba maanaam mooy sarf laa wax li gaaroon lisim ji ba muy maa laayan sarif loru way dik faf ñu delloo ko ci sarf mu ni kon wa surifa zul man'i min a sarf des na ko soppi littaraari ngir loru way aw tanaasubin wala askan wante rek ànd ak wax dafa ànd ak lu ñu ah, lu ñu sopp te- ba tax ñu jox ko tanwin wala ñu jare ko kasab wa minhu qawluhu taala s- ah, salaasilan wa axlaalan wa saira ci sunu jàngin salaasilan xam nga ni mafaila kay maa laa yan sarif la war a doon moom kooku moom amul dama la ne siixatu muntahal ju mooy amul lu muy àndal moom kenn rek kon salaasila bu doon nakiraat maa laa yan sarif lay doon bu dee ci riwa- ah, qira riwaayatu xafs an asim salaasila wa axlaalan la ñuy jàng ñoom jàng ci cosaan ci maa laa yan sarif la du dégg bu dee ci riwaayatu naafi mu tani tanwin ko li tanaasub ndax gi li tanaasubi salaasilan wa axlaalan wa sairan loolu moom la ni walittiraarin aw tanaasubin suriftul man ba tey safaanu loolu wal masruufu li ñu daan soppi xad laa yansarifu léeg-léeg mu ñàkk a soppi ñu def loo xam ne mun sarif la woon ñu génnee ko ci taan def ko maa laa yansarif ba tey ngir lor way boobu nag moom du doon lor way wu rafet de ah dégg nga salaasilan wa axlaalan bi nga tanwiinee ah xanaa dégloo booleel tanwiin lisim yu àndandoo yu atafonte salaasilan wa axlaalan wa sairan tanaasub yëpp mansuub la maa tanwin loolu tanaasub googu mooy wajhum ci arabiya lu nu mel dagan na ci arabiya ngir tanaasub bëgg ñu niroonte askanoonte àndante ama boo bàyyee cosaan nga ni salaasila wa axlaalan te loolu moo di riwaayatu xafsa an asim sax ah kone salaasila salaasila ci boppam ah axlaalan lu ko dafa war a mës a doon maalaan sarif ci àddina afaalun dafa bokk ci maalaan sarif yi ci àddina smaawun afaalun moom même bu doon alam itam euh, benn illa bi alam yer rekk ci ne di ni ki asmaa bu dul bu bu ah, tabassar xalili hal tara min ra'ainin سوالك نقبا بين حزمي شعب أبي شوي ابن القيس من ذعائن ذعائن مفاعل فعائل ما لا ينصرف لوردون لور ويتا نسبتكو دين كوكو موم برنا تناسب موملني سلاسلا وأغلالا وسائلا في قراءة من نونا والمصروف قد لا ينصرف لولو نك موي لي موم آه لو خاني م- ما منصرف لورون دون لور